DER dugal na fii lu toll région wu Diourbel deux milliards cent millions daanaka Diourbel Touba moo nekkoon sama deuxième région bu ma visité après Ziguinchor bu ñu tàmbalee DER bi ñëwoon naa fii euh, boobu Magal baa ngi doon ñëw 2019 madame Cheikh Seye Mountakha boobu ñu dugal cinq cent millions si jeunes yi demoon Mbàkke euh, gars yi di liggéey di fay ñuy dolli tey am nañu minimum 2 milliards 700 millions de francais fa yi nga xamante ne DER dugal na ko ci biir région Diourbel te département Mbacké moo ci ëppale 70 pour cent yëpp fii la ñëw parce que activité économique bi pour poumon économique bi fii la et loolu bu weesoo mun naa ne tamit nanu crédit bu mu dooree euh, région bi ëpp la ne si ñi nga xamante ne Sénégal gi yëpp ñoo si gën a jël Mbàkke bi ñu jógee sànq am na lu toll 73 millions yu ñu fa dugal pour 1400 bénéficiaires fii euh, maire wax na ko léegi dugal nañu lu toll 42 millions pour 672 bénéficiaires soxna si Seck wax na ko léegi point bu ñu ubbi octobre rek léegi 28 octobre un mois dugal nañu toll 22 millions 451 millions boo boolee yëpp si 4 mois daanaka. décaissé nañu lu toll 140 millions de francs CFA loolu xaalis bëri la et boo leen continuer nii. boo remboursé tey wala suba wala fin du mois da ngay doublé et beneen technique mooy boo leen di ñëw mun ngeen ñëwandoo cinq 10 booloo ku nekk jël 100000 wala 200000 boo leen ko booloo mooy 2 millions ngeen dem def seen commerce seen activité remboursé muy continuer. bu ñu buggee indi maanaam mooy loolu yëpp dañ koy def mu digitalisé boo leen booloo ngeen nekk 100. ngeen am 10 millions ci seen calebasse bi ñun dañ leen di fekk foofu dugal leen 10 millions yéen seen bopp ngeen gérer ko soxla leen chaque bureau parce que xaalis bi ci compte lañ koy def da ngeen am seen carte de membre carte de membre bi day am photo day am tour fédération bi ba pare ngeen am encadrement ak formation ba pare ñu ngi xool nu ñu ci dolli CMU ak assurance maladie ak épargne loolu boo ko amee carte boobu noonu dana tax nga am sa 200000 300000 500000 boo amee euh, ordonnance nga mun ko si fay boo feebaree CMU remboursé la ba pare boo buggee transféré entre Wave Orange mani Wizall ñu ngi siy liggéey mu yomb si yow dootoo sax soxla ñëw fii lépp da koy def si sa téléphone jënd jaay remboursé bu soobee yàlla fii ak janvier si loolu la ñuy liggéey pour daa door ko Touba ak Sénégal yëpp nga jigéen ñi mën liggéey. beneen bi li ma mën wax mooy wax naa si léegi ak madame Mbacké étant donné que Touba département euh, commune bu rëy la Mbacké département bu rëy la benn point bu doyul moo tax dinañ xool SEDAF nuñ fay ubbee benn point nanu pour yeneen jigéen ñi man dem foofu am aussi ay financement et wax naa si sànq aussi ak maire euh, Abdou Mbacké Ndaw pour xool nu ñuy liggéey entre intercommunalité bi pour que sàncaani ñu mën a am point ñu mën a leb nga am nga jox leen certificat de résidence fu ñuy liggéey ñu mën a leb fayee foofu donc monsieur le maire li ma la mën ña ñaan rek mooy liggéey ak femmes yi mm. ak population yi sensibiliser leen expliquer leen comme ni ko Aïda waxee ak ñëpp affaire bi boor atti fay lu alalu nguur mën naa ko wax man président Macky Sall laa fi toogal mais président Macky Sall moo mun xaalis man moom ma xaalis bi Abdoul Ahad mii moomul xaalis bi honorable mii moomul xaalis xaalis bi askan wi ñoo ko bokk budget wu la te ku yaakaar ne boo lekkee xaalis boobu doo fay juum nga ndax xaalis boobu du mës a fay ñun bu ñu fi jógee beneen procureur bi fi ñëwee dina la wow te boobaa di nga fay donc bu soobee yàlla li ma bëgg mooy ñu liggéey bu ñu continuer nii bu soobee yàlla waxuma sax un milliard mais activité économique bu ma fi gis plus de deux millions cinq cent mille personnes ak cérémonie religieuse yi gàmmu yi màggal yi commerce bi consommation bi fruits et légumes bétail viande production laitière eau c'est-à-dire céréales transformation céréale gerte bi euh, huile segal bi mun naa waat ni fii mun nañ fi dugal 3 milliards si at boo leen liggéey di rembourser bu soobee yàlla